有。 9h33 ci rajo Futur Média mbokki ñu ngi leen di nuyu dellu am mbégte di and ak yéen suñu émission xalas mu di suñu journal fait divers fi ci Radio Futur Média xew-xewi jamono yi xew ci réew mi yi xew sax lekk-lekk ci bitim réew ñukoy andi fi di leen ko dégtal ngir ñu jàngé ci ngir ñu xamé ci mais également ngir it ñu yétanté ci di baaxoo di ci ànd ci waxtu li ak Aba xam ngeen ko mom ah, ban dina leen wax ci kanam touti fan la Aba nek ak lan la fa nekkee. Ah. ndax am na lu ma dee sànq mais bon comme ni wolof di wax nettali ci gémmiñu borom lay gën a neexee waaye moom baan mi ngi ni inspecteur maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar sama waa maa ngi dégg Aliou Ba di la wooyee jali bu ñuul lu xew yu ñuul li nga solo tax. <laughs> non ci bi booy c'est kër gi nag vraiment. Hmm. kër gi dafa bari ay booy yoo xam ne vraiment dañu ña ñàkk nañu yar de. Hmm, Badou waaw. mais tamit. Euh, li mu oustaz Mor Thiam daan wax boo màggatee boo béjjaawee auto poudre la romb. oustaz Mor Thiam daal man oustaz Guèye ba jaaxal mais oustaz Mor Thiam na auditeurs yi xam ni. dañoo war a dàq waa waa kii waa allo présidence <laughs> heure ba ñu jox oustaz Mor Thiam ndaxte lim ñu won tey oustaz lim ñu won war na koy won gaa yi ci ci ci <laughs> par àjjuma. loo xam ne tey sax xol bee neexul. lim wax sax enregistré naa ko tey sax xol bee neexul ndax sëriñam dafa. waaw <laughs> dafa làqu. waaw eh, bis boo ko demee ba fekk oustaz ba xol bi neex. Euh. xaalis poos bi am xaalis. waa musna la netali ni jaayam ju don dam ak ben jarba <laughs> ci grand place oustaz mom mosu laa nettali lool boo génne ne ko na la ko nettali <laughs> booy na ko nettali ñëpp ay ciop ma ngi leen di yoon jàll waa Tiwaawan gépp di jall umma islamique bi yëpp wax deug mm-hmm. yalla ki nga xamni mo fi jóge mom eh, xaritu ñepp ba mm-hmm. nit ku bax la nit ko xamni vraiment mm-hmm. vraiment dal Sénégal yi wax rek Sénégal mo ñàkk nit la ko xam soko rek gis sa bop ci limi wax koo xam ne amul sens interdit fenn fenn fenn ci réew mi wala ci àdduna bi. Mhm. xajoon na fi nag wax dëgg yàlla ba ci kanam mhm. kanam. ak ah, mais mais mais bul fàtte ne lu baax yàlla ñu ko gën a bëgg. waaw waaw loolu ku baax it yàlla ñu ko gën a bëgg. moom sax ay loolu ay waxam la sax. ah waaw loolu ay di jaal tamit waa Ceneba xalifa Ceneba bi eh, ñu ñaan yàlla rek. yàlla na ko yàlla xaare àjjana te hmm. yu mel ni yàlla na fi géej sunu mag ñi wax hmm. dëgg yàlla hmm. soxla nañ leen te xañ nañ fi ba ci kanam jërëjëf amin way yàlla la sunu borom dégg passe partout maa ngi lay nuyu Ndiaye maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu baan remplace Abba au pied levé comme ni koy waxee le remplaçant potentiel kay <laughs> maa ngi ziar auditeur yëpp di ziare sama gars yi waa fajar gi waaw di fekk si ban rek di jaale waa Sénégal yëpp euh, sëñ Pape Malick ak xalifa Thiénaba bi yàlla tajju ñu seen ay barke amin di ñaanal ñu fi dess yalla bàyyi ba ci kanam kanam kanam kanam. amin way ki Ndiaye. pass passerelle kan mo kan moko yoré yore. passerelle yi ya. passerelle yi ñi jéggee ci autoroute bék yoy ah. xanaa kàcc bu né maire yi ba. ah de de est-ce que ñoom la sax est-ce que ñoom la lu ci xew. non en fait dama joggé Kër Massar. Mhm. ñëw bu tourné croisement Cambérène passerelle yi ma compté yëpp benn moo ci bax xam nga bu si mbaaw la ñon wax. Mhm. mais ndekete yenn ci route nationale bi yépp ben baaxu ci yëpp dañ leen a démonté une partie bàyyi ko noonu presque léegi mat un an da ngay lijjanti loon di loolu hmm. xam nga ña ko defar xëyuñu rek mu neex la ñu dem démonté ji ko hmm. soit camion wala oto wala nit def na fa loo xamante ne ji wóoratul hmm. ñu ko fay bàyyi ndax mën naa jur loraange bi ma bi ma lijjantee dañ ne ma dafa am bagage yu jóge woon port doon dem kër a Sarr moo taxoon ñu dindi woon ko mais ko ah, dee loolu moom ko parce que yàgg na te nit ñi mën ñu dëkk te di jéggi autoroute bi ak oto yi tamit sax ñooy bañ ku jéggi autoroute kon la ñu fa def fu nit ñi di ci jéggee bu dee ñoo ko dindi waaw nañ ko defaat loolu moom leer na inspecteur Ndiaye ay ca fu ñuy tàmbalee xanaa ñu dellu àndaat ak umma rek umu mel mi doon wër yaayam ak baayam maanaam ki doon wër identité am umu umu umu ah, directeur des routes ngi woote ci mbir mi de xam naa ne après dinañ ñu ci waaw dinañu leeral pour ñu xam coow coowal passerelle yooyu j'aime bien ça ça réaction mhm. yu baax di di déglu xalaat soo déggee loo xam ne nga réaction nga réagir directeur des routes après dinañ ko woo mu leeral ñu ci mbiru moom nu mu demee. Mhm. ak mbirum euh, passerelle yi waaw mbirum passerelle ñu koy sant di ko gërëm bu baax a baax. da kilifa de day oyof. waaw day oyof. Mhm. ot ba pare mën a gaaw ci réaction. Ndiaye umu mii mooy xale bu jigéen bi doon wër identité am. waaw waaw. ñëpp démb ñëpp seen yaram daw na toujours ma leen di wax ni soo leen koy déglu su naan yaay kako ko yar. ba mu juddoo loxo yan ko tegoon kooku la hmm. naan yaay te ki nga xam ne bi muy faatu baalu na ko àq ci lalu hôpitalam waaw ah, kooku lay wax yaay kooku lay wax yaay hmm. ki muy wax papa mooy jëkkëru kooku tamit jàlloog ñooñu hmm. moom lay wax papa ndaw sa états uni la nekk di wax toujours ci ay yoo xam ne ngeen koy dégg mu ne am na benn maire sage-femme bu ñuy wax Marème Diakhité ñu koy wax tamit di ko interpellé waat ni ko ubbil nañ la sunuy bunt ba léegi pour ñu ñëw leeral lii nii moo ni ko ba nga juddoo sa yaay dalaa naroon a dugal ca foos ba maa la jël yóbbu la tegle ci loxo maye la. Mhm. am na keneen koom mu ko mayoon benn meeru fóotkat bu nekkoon Faas. maire Issa maire Issa. Mhm. après dañ ko jëlee ci maire Issa jox ko famille bi mhm. ci un er, er, renseignement yi mu am. ndaw si jàpp na ni yaayam ab naar la étudiante naar moo ko jur. mais kon li sage bi wax aussi mën a gis koo dàq. mën a su koo dàq. mais tamit war su dee dëgg la nañ ko ko dëggalal. moom moo dem wëri yaayam. parce que instant bi mi ngi ciy dégg lu ne. Ah, histoire bu doy léegi gis nga ban. waaw ñoo xam ne nit yi kàddu lañu ku la ne ba ko koy bu fekkente ne dañ ko koo mayoon. waaw mm-hmm. ku la ne bañ ko koy may amul lu mu waxante woon ak yaay ja xam nga bu la ne bu àdduna yàgg ba mu xam maa ko jur. moom moomul bay maye. Mm-hmm. waa di dama ne ki ko jur. ki ko jur ba mu ko koy may. waaw est-ce que waxu ko woon ne ko bu àdduna yàgg ba mu xam may kan. ah am na loolu lépp ci la. mais xale bi mais jayite moomu sage femme boobu madame jayite. Mm-hmm. moo war a ñëw lijjanti waaw. en tout cas jaay itam mënut a réer ci réew réew non non yor na yor numéro sax ba ji alpha alpha te boppam ndaw si da koo ci lii war a jàll tey mhm. njaay bon euh, sam papa mu ngi tudd alfuseyni diallo sama yaay aram jakite loolu moo nekk ci sama kayit sama kayitu judd boo ko da nga naan ñoom ñoo man umul kalsum diallo moo ma sa sama tur léegi nag sam papa 2009 lama waxon waxoon bas buma deggete di nga siy set di laajte ax ah, lu mënti nekk naa la bàyyi àddina ak àllaaxira fu mu ne nii risque bu rëy laa jël bu yëgee lii daf may bàyyi waaye nag bu ñuy wax dëgg rek te yàlla tax ba tey jii may wax ak yow différence bu bëri la entre ni muy réagir ak man ak ni muy réagir ak ñii. sama papa ma naan jëlal ma billet sax ma ñëw États-Unis ma jëndal ko billet bu ñëwee du ma ko dégg du ma ko gis da nga koy woo du wuyu téléphone am xëy rek ñu ne la nee na message ñibbi na Sénégal te gisoo ko loolu sax daf ma koy def. bés bu yëgee ne maa ngi sedd na ma bàyyi sànq wax naa ci ak sama mag bi ma ko sama papa bu ko yëgee dana ma bàyyi mu ne ma def ko parce que danga nga war a xam. ne moom a jël mais ñu bëri man na li ma gëm daal mooy. sama naar la histoire boobu université yooyu man loolu naa ko. histoire sa papa ambassade Mauritanie la doon liggéey xanaa mu doon naar bu mais man ku ma xool xam ne nit ku ñuul ak nitu xees moom a jur mais pas ñaar ñu xees non dama dama métissé

mais je peux pas nier à ce que vous avez fait pour moi yéen a ma dundal yéen ma yar yéen ma yor bu dee benn bésu bànneex mos ngeen ma ko jox joué rôle bu bëri yéen a tax ma don, ki ma doon tey te dóor saaga loolu du dara ci doomu adama lu dul ko te du man kese nag ngeen dóor non non du ma ne kenn waruma dóor kenn waruma def dara it. mais papa mon nga changer lu bëri ci sama àdduna Mon nga changer lu bëri ci aduna, euh, ami papu keneen ak keneen juste so waxoon soo defoon dara soo réagir woon ba man dama doon wax naan sama papa bëgg naa ko baax na jullit bu baax la mais bëgguma am jëkkër ju mel ni papa man dama mosoon a bëgg a gis bañ ne du ma ñëw États-Unis ni nga réagir ni non non non non non cinq doom la mineur laa wax ni euh, ambassade moom laa am kon umu on a pas le choix il faut mu ñëw jubóo réagir nga dama kontaanoon si yow. mais papa danga noppi de trop j'espère que li nga waxoon ne suma gëstoo di nga ma bàyyi. Adina ak àllaaxira j'espère que di nga ci di nga reculer ci sa position di nga ma fekk si vraiment euh, nga bal ma di nga ma fekk si sama position parce que lii dafa di loo xam ne il faut ma xam ko li ma dund daf ma travailler yéen nag ñu bëri si yéen di déglu message bi di ngeen ma mere kenn warul fàttaliku lu bon nit kuy fàttaliku lu bon baaxoo mais li ma dund dundoo ko man je me dis yow da nga gumboon keneen ak keneen dafa gumboon wala lan le malheur que j'avais la tristesse dans mes yeux gisoon leen ko woon ñi ma doon jàngal Lamine Gueye xam nañ ko damay jàngi si toog samay rongoñ di tuur bis bi bu tourné ci koñ bi bu duggee Yoff Layeen rek sama fit bi di commencé di tëf tëfi su ma wàccee bis bi damay for ay bant ci suuf dugal ko sama bopp bi parce que dañ ne boo texee euh, bant sa bopp kenn du la door c'était toujours quelque chose waxuma ne chaque jour chaque jour mais c'était toujours quelque chose juste le fait que ngay dugg sa kër di tiit di ragal ça c'est yaa ngi tiit sa sœur dana la def dara wala keneen dana la def dara ça c'est pas normal xale warul tiit noonu pour dugg këram papa da nga yàgg noppi tey dama soxla réaction ci yow. nga laal ma papa touche moi. parce que yow tu me touches même pas intéressé woo ci man téléphone sax suma la jotee allo oui ça va ça va bien ok bye coupé nga lan laa la def ban secret ngay yóbbu sa bàmmeel papa. papa ji moy kiko ko yar. waaw mom mom la yar papa. yaay tamit jaboru pap ki mu yar papa. mom la yar non lol kay leer na mais ni ma degge xale bu jigen bi wax. waaw dafa mel papa ji amna lu mu xam lu mu ko bëggu ta wax. waaw te nee ko so gesto dina la baye aduna ak alakhirah hmm est-ce que qu'est-ce que quelle histoire bi du papa ji. ah dafa dess deglu rek. maa ngi tudd Oumou Diallo sama papa Alfousseni Diallo sama yaay Aram Diakité yàlla na ko yàlla yaram xare ko àjjana. ñu ngi njëkkoon dëkk rue 10 koñu cosaan suñu kër moo jàkkaarloo woon ak école publique bi biñ fa jógee ñu dëkk HLM 5 ci entre marché bi ak euh, cinéma magique ci allée boobu buñ fa jógee ñu dëkk cité Alia Déguine Thiène damay joxe nag samay information parce que du ñàkk xëy na benn dëkkandoo benn xarit benn collègue du ñàkk am na kenn koo xam ne nit mën mës na confier wu ci moom recommandé laa juddoo Abbas Ndaw en 1982 30 juillet 1982 wóoruma bu baax nag ci date de naissance bi sama extrait de naissance boo ko xoolee nga naa samay waajur ñooy samay waajur waaye nag li fi jot a jaar dafa bëri dëgg la indi nañ ma États-Unis sama sœur jël sama green card xotti sànni ñu génnee ma nag mu nekkoon lu metti waaye lépp rek moo tax ma doon tey jigéen ci ma doon dëgër loolu teel ma dugal ci sëy ma daje góor gu bon nag waaye su ma deewee ci sëy rek man c'est parce que bugguma kenn reetaan ma c'est vraiment dommage pour faire ni ñi nga bañ ñu la c'est ta propre famille c'est vraiment dommage mais nag de damay sant à bi nga xam ne sama mag ami T'es bokk na si ñi pousser à part sama doom sama taaw ak sama borom kër mën naa ne ñoom ñett ñoo ma poussé pour me rechercher La xam nañ ni man tant que xaw ma dëgg bi duma complète j'ai le droit de savoir il faut ma xam sama identité xam samay origine maternelle et aussi paternelle il faut j'ai le droit il faut que ma xam may ñaan su fekkee ne am na kenn ku xam sama histoire ngeen woote xalaas ngeen wax ak Ndoye Bane wala euh, Passepartout am nañu benn page Facebook mission yaay am nañ ci ay membre vraiment ñoo ngi recherché daal boobu ba tey gouvernement Mauritanie dugg na ci am nañu fa contact même seen ministère euh, des affaires étrangères am faut contact kon tur boo leen ñu jox rek dinañ ko mën seet Mauritanie sama yaay nag étudiante la université Cheikh Anta Diop ci liñ ma jot wax. c'est possible peut-être que sama papa ki ma jur dëggantaan ambassade Mauritanie la doon liggéey le lépp nag mën na am dëgg de mën am parce que man dañ ma jox ay fukki version ak Djuro. li wote wor moy waddeewu ma ci kaw asamaan si sakuma sama bop mais man amul benn membre ko sama famille te loolu am na ñu ma ko ci wax même semaine bi wax naa leen ko amul kenn koo xam ne rek sa wax gëmati naa ko loo wax rek day dugg fii génn fee parce que mënuma concevoir benn xale ci famille ay magum jëmm ku ci nekk na la man may wax dëgg c'est pas pour manquer leen respect wala dara mais il faut ngeen toog sama position yéen ñëpp ku ci nekk na nga xam ne lan ma wax ak li ma sa morom wax bokkul te loolu mënul nekk te ndem si yàlla si yàlla na ko yàlla yërëm gaañu na dem na li ma waxoon ak yéen li ngeen ma wax bokkul sama papa nag mi ma war a dimbali ngir yàlla li laa war a suuli wax nee na moom da koy yóbbaale bàmmeelam waaye du ma sa wax may ñaan ku xam na ma wax am na maire buñ ma njëkkoon a jox d'après liñ ma jot wax ku ñuy wax maire isa mu ngi dëkk Fass ci wetu pont nee nañ kat la woon kooku moom a njëkkoon a yore après ñu delluwaat jëlaat ma ci kooku su fekkee ni li may wax am na suñu dëkkandoo kenn ku mu mënti nekk koo xam ne xam nga histoire bi ngir yàlla wax leen ñu sama tante marine Diakité la tudd recommandé la nekkoon sage-femme fa la retraité te ci ay loxoom laa jaar moom su ma waxul ngir yàlla yéen ñi ko xam wax leen ma c'est vraiment dommage nag vraiment vraiment dommage que may jaar ci rajo bi ci loo xam ne yow tataa mënoon nga ma ko wax mu yomb ci man noon ngeen ko nëbb tamit xalaas lii waaw hmm. dara gënu koo doon stress hmm. boobu di liggéey ci barab te xamoo weer dee ñaata ngay am nga war a xaar weer wi de lool la pour nga war a dem gisee kay fay nga soog a xam te xam nga dégg li mu daaneel ñu hmm. mënoon koo nëbb suñ ko ko nëbboon xamu ko xamul mais tey jii xale yi ndaw ndawaan yi nekk seen biir famille bi ci famille bi mu bokk sax dañ ko koy xase mhm. di ko ko jëwee xamoo sa yaay sa yaay naar la sa yaay wolof la kii la jur la jur ku nekk di wax mhm. mais maire bi ni ko dañ laa naroon a suul mhm. ma ñaan la ñu jox ma la ma dem teg la cay loxo maay sa yaay man nga war a toppatoo ndaxte maa la toppatoo teg li ay cay loxo soo melee nii maa tax maire boobu ci ay waxu xale bu jigéen bi laa wax de maire boobu ay doom sax di ko wax ne ko soo mele nii sama yaay a tax Hmm. ndax heure bi suñ la sànni woon heure bi suñ la fekkoon ca foos ba te xale bi soo gisee nag loxo yu bari yi xam nga lu sotti am borom hmm. ñu bari bëgg koo jël xale bi yàlla da koo may teraanga tuuti nag hmm. muy am ñuy jot ay western ak i monogramme yu bari yoo xam ne dafa yor preuve nag ak i orange money ak i njaay déglu ndaw si yàlla nag suturaal na ma dimbale na ma am naa borom kër gu baax am naa doom jotaat naa ci samay kayit maa ngi tukki dëkk bu sama yaay la bëgg xam mooy kan te j'ai le droit ma xam sama yaay mooy kan loolu rek laa bëgg si àddina te gis nga yéen ñëpp soo leen ma bàyyi ma doxa doxa dox ba dem aw ma dara dara dara benn résultat lu dul bàmmel ñu ne ma fii la tëdd ma jël yéen ñëpp soo leen ma bàyyi ma dem ba gis ko mu ni ma bugguma la rejeté ma ba tey ma jël so même bu dee résultat bi mooy doon ñu ne ma sa parent yëpp dee nañu maa détaal yi wala ma gis baay bu ma rejeté wala ndey gu ma rejeté ba tey j'accepte au moins danaa xam ne man mii essayé naa j'ai essayé ah lu mu mënti mel rek mu ma ëmb juróom-ñeenti weer benn bés ñëw bëgg koo rey kon kooku awma fayam it doesn't matter daf ma joxe joxew ma daf ma sànneeg wala wax ju ñaaw gi may dégg daf ma bëggoon rey man loolu lépp xooluma ko ndax boroom kun fa yakun moom yàlla moom nii la moom moom mi la moom moom ma sàkk ma sàkk la bu fekkee li ngay wax am na moom xam na te bu ko neexoon tamit duma sax juddu duma ma sax exister damay dee même bu fekkee ne lii su ma ko toppee mooy sama fin ba tey nangu naa bëgg naa amul dara lu ma see ragal nag mais une chose est claire kenn dootuma xasati parce que xale laa de waaye fekkee naa démb nag te am na lu ma xam su nit bu taxawee di ma xas wala di ma wax ju ñaaw te tontuwuma la rek. c'est parce que respect gu ma am la ci sa waajur walla rek ci yow mais erreur boobu dootuma ko defati ndax ku ma woon benn mën na la fukk dootoo juumati di joxañ sax di jëmale sama kanam kon loolu c'est de ma li ma bëgg rek mooy trouver sama yaay ku ma mën a dimbali si loolu rek laa bëgg. papa man dama la bëgg am yërmande ci yow comme doom ju ma jur ay boo xamoon cofeel gi ma am ci yow ah ni ma lay ñaanalee. papa su fekkee ne man dama la mës a def dara sa àddina baal ah, s'il vous plaît. J'ai besoin de savoir qui je suis, d'où je viens. C'est un droit fondamental, c'est mon droit fondamental en tant qu'être humain, de savoir mes origines maternelles et paternelles. J'ai besoin de savoir qui je suis. C'est vraiment, vraiment nécessaire pour moi de savoir ça, afin que je puisse me réconcilier avec mon passé pour construire mon avenir. Mais nier à un enfant son identité, ça peut le rendre fou. Nul n'a le droit de me nier mon identité. Papa, il est temps nga wax dëkk naa yow 16 ans 16 ans boobu xam nga je dund 22 ans je suis di ñaan bientôt mois prochain j'aurai 38 ans je me rappelle à mon benn voisin bu ñu il me disait toujours ñi je la ne dama ko bañ non, non, non, non, non, c'est mes parents. Mon un jour, as ami le spécial dans ta vie, soit ce mariage, ou ce dom, ou ce graduation, ou ce papa Voilà. Je l'ai fait après mon mariage. Je l'ai fait après la naissance de ma fille. C'est mes reprises de diplôme. Papa, ce fait qu'il est vraiment orphelin là. Papa, il est orphelin. Mais jirim orphelin. jirim. est ci sa est ngir Il li orphelin li lépp mën nga ko jeexal tay tay tay tay, tay soo bëggee sama yaay mi ma doon tiim hôpital man leer na ma ne su mënoon wax dana ma wax te yéen ñëpp di ma dégg boo leen foogee ne moom ngeen di garder secret bi moom ngeen koy defal wallahi alhazim yéen a koy tooñ su mënoon wax dana wax il est temps ngeen wax magum jëmm laa c'est mon droit tout ce que je demande c'est de savoir qui je suis pas plus bi doon joy goudi di ñaan yalla amour le affection mon lolo. je veux juste savoir man papa man j'existe mais je ne vis pas il faut que vous sachiez ça j'existe j'existe du moins mais papa je ne vis pas ma vie n'a pas de sens tant que je ne sache pas qui je suis tout ce que je demande c'est que vous me redonnez la vie encore week-end. À suivre. président ci côté européen ko la barak san dagaru sa zoro du fek sori président de la république en ci palais de la république président de la république bi nga xam ne moo dans le quartier Dakar plateau capitale du Sénégal construit en 1902 sama palais bi xaw naa yàgg mu doon la résidence